wax naa ko keroog téléphone nee naa ña gën a ca ñoom di leen jiite ca mag garab boobu sëñ Fallou moo ma leen gënal noonu laa ko waxee téléphone garab boobu sëñ Fallou moo ma leen gënal ak taalibe nun duñ ko kooj duñ ko rax dégg nga kon yow bu fekkee da nga am loo bëgg a wax gànna mesere bul jël waxi sëñ Amadou Rafa wala ngay jël waxi sëñ jiw déedéet bàyyil jàmboor kooku sama kilifa la hmm? mënu fexe fexe ba moom ba ma woon ba ma ñëw mu pes ma damay raay sama aajo faju na eh? na ngeen ko bàyyi xel ginnaaw da ngeen a ñeme ab affrontement rek te ñeme defante mm-hmm. man moom wala la sëñ Ahmadou Diop paxa waxoon wala su ubali bil baraya jamian ida gadibu wala in kuntu radiya man boo ma meree du ma la faale ndax sëñ Tuubaa gërëm na ma te xam nga ko yow ndax yow euh, nangam daal kon daal man naa ngi <laughs> baal ñëpp ak di baal ñëpp ak Euh, wax dëgg yàlla jombante na ma ak ay ay ñenn ñooñu moom wax wax ñu wax may li ma ci gën a naqare mooy dama xam ne mbuut yi may dendale léegi-léegi neexu ma xam nga mbuut doo ko dendale ku mel ni man nga jël aw mbuut di ma tax ah, ah, waaw voilà sa xel dal sëñ Tuubaa moo fi nekk li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di ko def kon continuer